asalaamaaleykum mbooloo mi ñi ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di rafetlu ci teewaay ci suñu invitation bi ngeen wuyu si man maa ngi tudd El Hadj Abdoulaye Sy Ndiaye jiite kuréel gi nga xamante ne moo ëmb euh, ñi nga xamante ne ñooy di dox ci li nga xamante ne mooy di réclamer intérêt étudiants yi bu université Iba Der Thiam de Thiès ñi ngeen gis ñi nag ñu taxaw mooy intersyndical étudiant père PATS bu gisee ñetti ante yooyu ku ko xam xam ne ñooñu ñoo composé famille universitaire te famille universitaire ku ko wax xam ne lii am Thiès nii amul feneen wala boog pour nga gis ko fa dana jafe lool muy nga gis étudiants yi taxaw gis ñi nga xam ne ñoo leen jàngal taxaw gis ñi nga xamante ni ñooy nekk ci ci ci administration bi taxaw di xeex benn affaire cela veut dire que kon ñooñu sonn nañ sonn gi nag du lenn lu dul depuis lu ëpp juróomi at ak ay weer teg wala lu mën a mën nañu wax ni lu ëpp juróom benni at teg ñu nekk ci université boo nga xamante ni dañ koy tuddee université waaye du université ñu am na mur de clôture am ay toilettes mais ko tuddee ab ndax mënoo jël ay nit sànni leen ca àll ba ay étudiants ay doomi jàmbur jugee fu ne nga indi leen ñu loger leen te logement yooyu noonu sax dafa doyul parce que étudiants yi fi ni ngi ñoo ngi sonn nekk ci biir université bi depuis plus d'une semaine ñoom seen i ay doom defuñu noonu seen i ay doom ñu ngi leen mettre ci ay conditions yu baax ñun ñu indi ñu fii nii depuis plus d'une semaine étudiants yi nekk fi ni ma bachelier yi ngay gis nii ñëw ba fii nii amoo xaalis ne kooku boo ko kañ wàcc tali bi reyante da koy def waxuñu dana wàcc tali bi reyante waaye nee nañu gis nga suñu université bii nii mur de clôture bi station d'épuration bi salle de classe gis nga bu ñu ko état mënee jox moo nu gënal ci jàmm parce que nit ku ne jàmm nga bëgg te ñëpp xam nañ ni mouvement yi fi mujjee am yëpp kenn déggul université Thiès université Thiès yaru nañ université ñoo ngi jàng mais ñoo ngi souffrir en silence université Thiès étudiants yi fi nekk son nañ personnel son nañ ñëpp sonn nañ di fi gis ab prof boo xam day dugg ci classe classe ba day bon bon goo xamante ne dafa naan étudiants yi fii nii beneen yoon du ma fi ñëwaat def cours parce que classe yi nii baaxul ay nit nag mënoo leen yebal foo xamante ne te li ñu gën a metti li ñu gën a jaaxal mooy miiru base bii ngeen jàkkaar lool bañ ko démarré travaux yàggul travaux yàggul miiru base bi léegi mu pare base bi seen seen seen entrée bi ñoo koy defar léegi mu pare li ñuy wax mooy état dafa deful priorité université Thiès université Thiès dañ leen a àll bi kenn faalewu leen te état université ko posé benn problème autorité yi nekk fi nag ci dëkk bi xaw ma nan lañ ko mën a di xaw ma dañuy neexal xaw ma ñun ñun tollu ñu jamono yoo xam te ne dañuy neexal gis nga année bii nii maanaam ñun dañu jàpp ni ren c'est tout ou rien suñu ay revendication dañ koy def parce que mënuñ jël ay plus de ñaata étudiant ñaata étudiant nekk ci université bi amuñu fu nu dëkk étudiants yi amuñu fu nu jàngee xanaa étudiant nag xanaa bu ñu nee étudiant étudier la bu fekkee dañ leen étudiant étudier te amoo foo jàngee loolu vraiment loolu c'est déplorable ñoo ngi nag interpellé promesse yi dafa doy ay chaque année ñu ñëw fii nii déwén ñu ne mars ren ñu ne janvier décembre loolu dafa doy gis nga université bi même bu ñu ko respecté woon ki ñu ko tuddee parrain bi muy Iba Der Thiam buñ ko buñ buñ xoolu étudiants ñu xool ci Iba Der ñu defar université bi mu pare waaw ndax ndax ndax budul dara ISEP bu Thiès benn université bi ba mu démarré yàgg na ISEP bu Thiès terminé ko dem fa di def ay festivités yoo xamante ni yàq xaalis boo xamante ni mi ci dëkk bi ay stades yoo xamante ni ñu ngi te université bi depuis plus de 6 ans mënut a fexe ba pare léegi nag ñu bu fekkee président de la république mooy njiital réew mi mu mu muy son excellence monsieur Macky Sall bu nu mënee jàppale parce que nouveau bachelier yi mënuñ leen fi téye te amuñu ay solution yu urgente pour ñu ko démarrer seen i cours parce que instant bi nii année bi waroon fekk ñu naan d'ici cinq mois dafay jeex instant bi nii ñoom démarré wuñ sax seen i cours loolu c'est déplorable loolu dafa rusu sax ci nguur boo xamante ne dafa aspirer à l'émergence loolu dafa rusu instant bi nii état waroon na bañ lii nii université boo xamante ne xool leen buntu université bi université bi amul buntu amul dara étudiants lu ne deen dal am na ñoo xamante ne sax dañuy dem ba dañuy bàyyi université bi dem feneen parce que mënuñuy wax à chaque année université Thiès léegi nii étudiants yi nouveau bachelier ñoo ñu ngi koy wax naan dañoo yaakaaroon Thiès li fi am nekkati Thiès amul dara Thiès tous amu fi nguur gi ay avancement gisuñu travaux yi bëgguñu sax ay ay dig ay dig dañoo bëgg gis nit ñi ñëw di liggéey comme ñee ni ñuy liggéey ñi ñëw di liggéey fii nii salle de ñun nag bañ ci dara parce que ku fàttaliku daaw daaw ku fàttaliku daaw ku fàttaliku daaw dina xam ne ne année universitaire bu Sénégal daaw université moo ko sauvé université moo reprendre en septembre amul benn université bu fi nangoo reprendre université Thiès def ko kon ça veut dire yi fi nekk bëgg nañ jàng léegi nag bëgg na jàng bu ñu jàppalewul ci jàng mi dinañ dinañ dinañ jël ay yeneen moyens yi xam te ne étudiants yi nekk ci université yi moom lañu utiliser dàqu ñu ñu ko mën nañ ko utiliser dinañ utiliser moyens yi ñu am ñu am maa ngi tudd Saliou Thiam maa nekk coordonnateur coordination des syndicats y compris les étudiants la conférence des étudiants euh, de l'université de Thiès. lu waral seen ndaje bi. li waraloon ndaje bi tey mooy chantier yi ngeen di gis suñu ginnaaw université Thiès ñi ngi ko tàmbali janvier 2007 lañ fi lañ ko installé janvier 2007 ba. 2015 la ñuy doog a ñëw teg xeeru constriction chantier yi 2015 bi ñu koy teg sax amul cérémonie amul dara dañu ñëw daje fii rek ni teg nañu xeer bi liggéey bi day commencé bi liggéey bi commencé euh, chantier bi mi ngi waroon durer si ñaari at pour liggéey boobu pare tey ñi ngi ci juróomi at yu teg juróom-ñaari weer chantier yi pareegul. jàpp nañ li ko waral nag mooy état bi faalewul waa Thiès faalewul waa université de Thiès. université euh, dinaa ñëw ci université Iba Der de Thiès lu tax mu am parce que bu ñu xoolee ci université yi am Sénégal yëpp amul benn bu ci toog fukki at ak nangam ñu lay doog a wutal tur université Thiès nag toog na 2007. ba deux mille vingt vingt et un deux mille vingt et un doo ko am tur ñu tuddee ko université Iba Der Thiam de Thiès loolu tamit liñ ciy waxaale mooy que ni comme ni ko suñu frère étudiant bi waxee bu ñu rusul ñi fiy liggéey depuis 2007 ba léegi ñu rus kiñ ko tuddee ndax am na lu mu jëfal Sénégal université université Iba Der de Thiam Iba Der Thiam Iba Der Thiam de Thiès université Iba Der de Thiès budget bi mu am yëpp ci location la ko yemale daanaka daanaka li ko manqué téeméeri million ci at mi bëriwul ba université bi commencé ba léegi ñaari pavillon moo fi am ñaari pavillon yooyu deux cent lii lay jël la war a jël deux cent lii la war lañ fa war a teg actuellement université Thiès ëpp na juróomi junni étudiant ñooñu fan la ñu logé yéen étudiants yi wuy leen mu fu ngeen logé beneen partie budget université université Iba Der Thiam de Thiès nekk ci pour ñu mën a rectorat mën a jàppale étudiants yi ñu dem jàngi mu leen di transporter di def chaque mois lu ëpp juróom euh, ñetti junni litre gasoil ci oto yi pour que ñu mën a yóbbu xale yi ñu dem jàngi am na ay labo yu ñu fi commencé woon liggéey dañu ni université Iba Der Thiam de Thiès université scientifique et technologie lañ ko bëgg a def defe naa ne fii ma taxaw di wax ku bu fekkee am na benn labo buñ fi defar ba mu pare ngeen wan ma ko labo yi bañ ko commencé am na tey quatre ans bañ ko ab ba mañ ko commencé léegi su ngeen paree ngeen vérifier labo yaa ngi nii suñu ginnaaw tege dañuy wax ni une semaine une semaine une semaine pour que ñu wan ñu wala ñu gis loo xam ne daf ñuy permettre ñu mën a xam ni ñoom ñi ngi ci chantier yi directeur aspect bi fi jëkk a dem bi fi jëkk a jaar madame Socé Dione joxe na fi ay dat date yow mu joxe woon deux mille dix-neuf la parcours am jeex na gisuñu dara tey directeur bi fi ñëw man personnellement taxaw naa ci visite chantier damay wax yi mu waxoon yëpp yooyu bàyyi naa ko mais novembre moom ak entrepreneur bi novembre maa ngi taxaw ñu ni chantier yi novembre dina livre salle de cours yi ak bloc administratif yi. novembre ban 2020 novembre 2020. ñu ngi ci ñu ngi ci novembre tey ñu ngi ci avril 2021 te yooyu benn date rek bu ma signé am na 1000 rendez-vous yu ñu joxe pour livrer université euh, chantier université Iba Der Thiam. loolu lépp nag ay waxi kese la. Euh, dama leen nettali benn anecdote toog nañu gudd ret avant chantier ci commencé à l'époque ministre Mary Teuw moo fa nekkoon mu ñuy présenté projet vidéo bi mu commencé présenter ni après ngeen intri ngeen intervenir ngeen introduire seen recommandation bi mu egsee université Thiès eggalewu ko fa la daje ba fa la jeexee ndax dama jël kàddu gi ni ko monsieur le ministre ñun soxlawuñu ay projet vidéo réalisation lañ soxla mm-hmm. loolu dañ koy delloo si fii tey soxlawuñu ministre bu ñëw fii wala député wala directeur ku ma mën a doon xam nga lu ñu soxla ñu ñëw ñu gis chantier yi ñu eggale ko soxlawuñu keneen su fekkee le président de la république mi ngi dégg suñu kàddu yi na ñëw ñu eggale chantier université Thiès yi ci délai bu gàtt nag bu gàtt une semaine dinañ dinañ xaar une semaine. liggéey fu mu toll. demul fenn ba ñuy wax fu mu toll. tabax nañu bâtiment yi jóg na taxaw ñu yemale ko fa defe naa ni néeg boo ci bëggee tëdd wala bureau boo ci bëggee dugg di nga ko dale di nga ko rax di ko peinture di ko installé matériel. mu am douche am fosse. mu am toilette am fosse yu nit ñi mën a jëfandikoo mënuñu nekk ci àll bi bu ngeen taxawoon fii léegi nag yi fekk leen fi lan moo ko waral mooy miiru clôture bi te xam ngeen ni nag du jaxasoo ku mu xamul mën nañu gaañ nit ñi. surtout les étudiants ñoom ñoo dëkk fii ñun ñuy wax personnel bi sax ak enseignants yi logé wuñu biir université mais les c'est les étudiants ñoom ñoo dëkk ci biir université mu nekk àll àll la yoruñu université présentement àll la ñu yor àll boobu nag dañu bëgg ñu transformer ko mu nekk dëkkuwaay boo xamante ni day mel ni université yëpp mën a mel. bi mooy euh, euh, seen dernier yuuxu daal wax nañ ko sànq ni leen jàpp nañ ni université wax yooyu ñëw na ba fii ci ñun. ñun université Thiès ñi fi nekk ay yambar lañ du ñu wax maanaam daal ñun sangunu jooyunu solalunu loolu nag dañu jàppoon ni lépp loo gis dañ koy waxtaane waxtaan woowu nag mënoo di waxtaane ni juróom juróomi at mënuloo indil solution mënuloo wax lu concret fii dara concret bu ko waxtaan amatul xam nga lan moo am ñu ñëw ni ñu chantier yi duñ ko sax wax dañuy gis liggéey bi reprendre. pourtant euh, monsieur le ñëw na fi fan yële ñu ngi ko fi xaaral dina ëllëg ndax manees na xaar ñu ni ko persona non grata soxla ñu ñëw fi bu ñëwee dana ko dégg mën na bañ a ñëw bu fekkee balay ñëw fii du envoyé ñu commencé liggéey bi jarul muy ñëw <laughs> mën na toog soxlawuñ ko fi soxlawuñu ministre liñ soxla mooy suñu chantier yii mu am ñu ñu eggale ko nañu indi ay ouvrier ci chantier bi ak matériel bi eggale chantier bi ñu eggale ko ñun soxlawuñu ministre fii même président de la république jarul muy ñëw soxla wuñ ko fi xam nga luñ soxla des ouvriers et des matériels de complémentaires yu eggale chantier université Thiès bonjour tout le monde je me nomme Khalifa Ababacar Sy Traoré président de l'amicale des étudiants de l'UFR CES et membre de la conférence des amicales d'étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Euh, nous sommes aujourd'hui présents avec l'intersyndicale des pairs, PATS et étudiants pour amener des sollicitations sur la table. Néanmoins, l'intersyndicale pairs, PATS, étudiants s'était battue de janvier 2015 à octobre 2015 pour le démarrage des activités des travaux de construction de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Ces derniers débutèrent en octobre 2015 dans la plus grande cacophonie et sans cérémonie officielle. Le site web du ministère informait qu'il s'agissait de la construction d'UFR, de santé, de SI, de l'UIT, de l'UFR 7, du rectorat, de l'hôtel du recteur, de trois salles multimédia, à savoir ENSA, ISFAR et l'UFR 16 d'un mur de clôture de 2,5 mètres de hauteur avec une longueur totale de 3 km. Et jusqu'à présent, nous constatons que ces travaux ne sont pas effectifs. Il y avait aussi une station d'épuration qui devrait être construite. Cela fait maintenant plus de 5 ans et 7 mois que l'on constate une latence de ces travaux qui handicapent en général l'université Iba Der de Thiès. On constate fortement que le nombre d'étudiants orientés au niveau de cette université est devenu incalculable avec des moyens tellement à déplorer qui sont minimes. Nous avons tant d'autres, parmi tant d'autres, les problèmes de salles de classe qui se posent. Il y en a beaucoup d'étudiants qui sont ici presque plus d'une semaine et qui n'ont pas encore fait de cours, juste parce qu'ils n'ont pas de classe, qu'ils n'ont pas là où faire leurs cours. Et il y en a même certains qui ne sont pas encore venus au niveau de l'université. Je Nous avons aussi un problème en pavillon. Au sein de ce site de la VCN, il n'y a que deux pavillons pour plus de 1200 étudiants, ce qui n'est pas normal. Nous avons un manque de salles en TP pour pouvoir pratiquer tout ce que l'on apprend, parce qu'on est une université à vocation scientifique et on manque beaucoup d'infrastructures dans ce domaine. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de mur de clôture et cela a amené beaucoup d'insécurité au niveau de cette université, d'où l'agression de certains étudiants allant même jusqu'à pousser certains étudiants à arrêter leurs études ou bien à déménager et à partir dans des recoins qui sont tellement loin de l'université. Ce sont des points qui sont saillants et qui mériteraient d'être étudiés très sérieusement par l'État du Sénégal. Aussi, nous constatons que depuis des mois, le ministère ou le ministre était venu et nous avait promis que nous allions recevoir les chantiers de l'université Ibader Thiam de Thiès à la fin du premier trimestre de l'année en cours. Mais jusqu'à présent, ces choses ne sont pas réalisées. À la longue de toutes ces choses, l'intersyndicale, pères, PATS et étudiants, consciente de la vie des étudiants, de la réussite de cette jeunesse qui, demain, devra supporter son pays et la défendre avec honneur, consciente de tout cet enjeu qui se pose sur ses épaules demande à l'État de prendre ses devants et d'assumer ses responsabilités afin de pouvoir mettre à bon port ce que cette université si noble demande de plus juste. Parce que comme vous le savez, on a toujours été taxé d'université pacifique, d'université respectée, d'université voilà, éduquée. Mais on vous rappelle que être pacifique ou bien être dans Le silence ne veut pas dire qu'on est des trouillards, ne veut pas dire qu'on ne peut pas riposter et ne veut pas aussi dire qu'on ne peut pas demander ce qui nous vient de droit et ce que l'on veut. Voilà. Donc, on informe à tout le monde que aujourd'hui, l'intersyndicale Père Patse et étudiants donne un délai d'une semaine à l'État afin qu'il puisse mettre tous les moyens à bon port afin de nous donner ces chantiers avec une rapidité excellente. Sinon, toute chose qui découlerait de cette rencontre sera de leur entière responsabilité. Parce que, parce que en gros, les étudiants sont fatigués. Les conditions de vie sont difficiles. Les conditions de vie sont difficiles. Il des étudiants qui sont ici, qui viennent de Kafountine, qui viennent de Kédougou, qui viennent de, du sud de la Ziguinchor et qui n'ont pas de compagnons ni de membres de famille ici. Ils n'ont pas là où loger. Et ce n'est pas normal que l'État les suive comme ça. Il faut des accompagnements. Il faut assez de salles de classe. un projet de 2015 à 2021, ce n'est pas normal. L'université de Thiès est éparpillée. L'université de Thiès n'est pas unie. L'université de Thiès manque d'infrastructures. Et l'université de Thiès est une université excellente qui devrait être encouragée, qui devrait être respectée. Et cela revient du ressort de l'État. Il y a des résultats qui sont excellents, qui ont été voilà, retenus des activités de cette université. Donc, on leur informe une dernière fois que la balle est dans leur camp et que l'intersyndicale, père, parts et étudiants, comme vous le voyez aujourd'hui, est sans plus autant jamais mobilisé et ne reculera devant rien pour l'obtention d'une université avec des sites unis. Je vous remercie. Bonjour madame, messieurs les journalistes. C'est Yacine Sen, représentant donc des syndicats des travailleurs, des enseignants aussi, de l'université de Thiès. L'université d'abord, je dirais l'université de Thiès. Après, j'en arriverai à l'université Ibader Thiam de Thiès. Pourquoi Depuis 2007, l'université de Thiès a été créée. Il a fallu attendre donc 15 ans, pratiquement, pour que l'université de Thiès devienne l'université Ibader Thiam de Thiès. Ce qui n'était pas déjà normal. Quand il a été créé en 2007, il a fallu 2015 pour qu'on commence à parler maintenant des chantiers de Thiès, alors que l'université continuait à grandir en nombre. Et jusqu'à présent, c'est les mêmes locaux qui étaient là, qui continuent à abriter plus de maintenant de 5000 étudiants, ce qui n'est pas normal. On a de bâtiments à location dans toute la ville de Thiès. qui pratiquement consomme tout le budget de l'université de Thiès. Ce n'est pas étonnant que ces bâtiments que vous voyez derrière restent inachevés. La location est trop lourde. Nous demandons à l'État d'injecter l'argent nécessaire pour que ces bâtiments puissent être achevés. Le travailleur, les enseignants vivent la promiscuité, surtout en ces temps maintenant de pandémie quand même. Il faudrait que le, le, gouvernement réponde à notre cri de cœur. Ce que nos neveux là viennent de dire, nous le confirmons. Ce n'est pas normal, 15 ans après, qu'on se trouve avec les mêmes bâtiments. Que le gouvernement, comme vous, vous avez entendu ce cri du cœur, et vous êtes venu répondre, que ce gouvernement vienne nous répondre. Sinon, dans une semaine, on va augmenter la pression. Et nous ne voulons pas en arriver là. Mais nous nous en avons, nous disons que trop c'est trop. Trop Des bâtiments, jusqu'à 10 ans pour la construction de bâtiments, ce pas normal. Deux pavillons seulement. On devait être dans une dizaine de pavillons. Que le gouvernement sache que les travailleurs, pères et pattes, en ont marre. Ce qu'on dit les étudiants, ils ne sont là que pour six ans, ils parte Mais nous sommes la pour notre carrière, toute notre vie, dans la promiscuité. Des problèmes de recrutement, des problèmes de lieu de travail. Nous tous, nous vivons la pandémie. Normalement, le gouvernement n'aurait même pas dû attendre qu'on soit là à crier. Et que donc, s'ils font la de oreille, nous irons à un degré beaucoup plus intense. Et cela ira en crescendo. Je vous remercie pour cela et transmettez pour nous cela donc au gouvernement. Je vous remercie. Vous rappelez votre nom euh, y compris les receveurs qui, 9 ou 9 ans, euh, jusqu'à présent, statut. Voilà, tout cela dans nos... c'est parce que il y a des gens qui sont là, qui pendant des années travaillent sans statut. Ça, c'est au niveau interne que nous luttons pour cela. Mais ça, ce sont des bâtiments. D'abord les bâtiments. Il faudrait que les constructions s'achèvent pour qu'on puisse donc maintenant parler. Mais actuellement, on est en de parler avec le recteur pour cela. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous rassemble ici sont les bâtiments que le gouvernement nous livre nos chantiers. Oui. C'est Yacine Sen, donc représentant père et partie donc, de l'université. À quel Même pas moins de 50 pour cent. non les deux pavillons c'était il y a de cela cinq ans. pour cent d'exécution. c'était pour, euh, quand on parle des pavillons c'était au début au début il y avait les deux pavillons maintenant huit ans maintenant huit après quand même je me dis on devait être à dix pavillons oui. donc si on est à deux pavillons seulement ça veut dire qu'on n'a même pas fait les cinquante pour cent